به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستحق الحمد وحق له أن يحمد الواحد الأحد المعبود ليس لغيره أن يعبد أوجد الموجودات من العدم على غير مثال يعقد تقدس سبحانه وتعالى في جلاله amma la yaliqu li kamalihi wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almawjudat sayidina wa habibina wa mawlana muhammad sala allahu alayhi wa sallam ayuha almushahiduna alkiram ayuha alixwa fi llah inna adwa alxadisi kitab allahi aza wa jal wa xayru lhuda hadi nabiyina muhammad sala allahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi gannaaw ba nu leen ba nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangu-sang yëpp muy sayyidina muhammad alayhi salaatu wa salaam ñi ngi nuyu di ziyaara kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di ci jiital nag sëriñ Babacar Cissé Alhaaj Mansour ak xadara malikiya bi yëpp waaye itam noonu la ñuy demee Touba sëriñ Muntaqa ñi ngi koy ziyaara ak ahlul mbakki yi yëpp waaye noonu la ñuy demee euh, ca eh, Njaasaan noonu la ñuy demee Canaba noonu lañuy demee itam eh, ñaseen eh, Serigne Cheikh Tidiane ñas ak waa ñaseen yëpp waaye fu kilifa diine nekk ci réew mi ñi ngi koy ziyaara di ko ñaanal yàlla waaye di ko tàllal sunu yoxoy xol di sàkku ci moom ñaan mbokk yi mu mel ni ñëwaat nañ ci seen jataay bu am solo bile di al azkar ngeen ci am toujours nag seen rubrique bu mag boobu nga xam ni mooy xam sa tabia te muy xam sa rawxaan fan nga bokk loolu incha allah bu ngeen nu dabee ci biir waxtaan wi ci 88 628 89 99 80 88 628 99 80 su ngeen ñu ci dabee rek incha allahu ñu ànd ak yéen ci waxtaan wi waaye tey nag ñuy waxtaanee lu am solo bi passé ñu ngi nekkoon ci basmala basmala muy bismillahi rahmaani rahim ñu waxtaan ci ci tolluwaayam ak i dayoom waaye itam waxtaan ci ci li nga xam ni nit ki mën na ko jariñoo mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala moo wax ni maa farratna fi kitab min cheyin amul dara dara lu jaam bi di soxla seet ko ci alquran te du ko ci fekk loolu amul ci alquran lu mu mën a doon <coughs> ñu baal nu lu mu mën a doon yow jaam bi ak yow jullit bi yow yaay natt sa bopp ci biir alquran beneen bi ci top yàlla ni wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaa wa rahma lil muminin e, wàcce nan alquran ñun yàlla e, mu nekk saafara ak lu leen di jariñ ci côté yépp waaye ñan yàlla ni ñi ko gëm waxul linnaas waxul lil muslimin waaye lil muminin ndax su fekkee da nga jógee ci nite tab bi ci biir jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala muy la muy wax wala tamutunna illa wa antum muslimun bu boobaa nag ci ngay nekk mumin xaqan boobu nag mooy dayo bi nga xam ni moo gën a kawe mooy dayo bi nga xam ni tam ci ngay utiliser ci ngay jariñoo sa ngëm ak support yi mu àndal yëpp kon <coughs> mu mel ni loolu lu am solo la eh, kon tey alquran ak dayoom eh, dañu wax ni tilaawatu alquran min al ibadat allati daa ilayha al islam wallati waada allahu subhanahu wa taala bi annahu yusibu alayha bi jazili thawab jàng alquran waxuma sax nga soxla rek tàbbi ca jàng gi nga koy jàng moo xam nag lu la ko mën a jàngloo waqaf la jàng ci bëgg a jàng bëgg ko xam la waaye tam nekk ci jaaxle jàng ko pour gindiku la bu ci nekk yàlla subhaanahu wa def la ci bijjil ab yool mbokk yi jullit li mu soxla ci àddina ak àllaaxira lépp dara sutu ci yool daan nan dégg nag kilifa gu mag ñu koy ñaanal yërmaande yàlla di ziyaar jabootam yépp muy alxaaji Ibrahima Sakho muy wax ni euh, tuyaaba dafa mel ni ki ñëw ba frontière tey damay tukki Paris ñëw ba aéroport def sama ki yëpp CFA bi ma yor ma wecceeku ko euro wecceeku boobu ma koy wecceeku pour yóbbaale ko mu ne ah loolu mooy ni la yàlla dimbalee fii ci àddina nga jël loolu weccee ko pour am tuyaaba ëllëg tuyaaba nag du caaxaan te nit dina ko soxla ëllëg yawmal qiyaam kon nag bu ne jàng alquran dafay tax nit ki e, mu firndeel ak jaamu yàllaam ndax alquran lan la indil mu nekk sa téere nga di ko waqaf di ko jàng di ko settantal di ko bàyyi xel waaye itam doo ca yem waaye nag fexe ba xam li nekk ci biir alquran mbokk yi léeg-léeg ma misaal ni kii jàng al alquran te xamul li muy tekki dafa mel ni tey président de la république yónnee la benn lettre pour que nga jaar ci ñëw ci moom nga jël lettre ba rek di fomp yi teg sa bibliothèque yow xamoo sax lanu la ca message biñ la ci envoyé pour que bis am nga audience nga ñëw yow ngay jël rek di fomp ka ajaka teg alquran du loolu alquran dafa làmboo ñett yoo xam ni benn munu ci ñàkk ci nit benn muy dañ ko indi mu nekk ma mawida ci yow nit ki pour mu topp yàlla mu leer foog li ko yàlla waare mu comprendre ko loolu alquran moo la koy leeralal beneen bi wa shifaun fi suduri nnaas waaye itam wa shifaun lima fi sudur waaye wa shifaun li lil marad yëpp maradul qalb maradul jasad ak ya ca aju saafara boobu pour nga comprendre ko pour nga mën ko jëfandikoo ko foog nga téye ko jàng ko càmbar ko doxal ko kon boobu rekk doy na nga jàng ko ñett ñetteel bi annonce yim lay jox <coughs> ñu baal nu annonce yim lay jox pour ëllëg yawmal qiyaam allahu akbar ni ngay toppe sa borom ni ngay jaamoo yàlla ni ngay rafetalee sa diggante ak sa dëkkandoo ni ngay rafetalee sa diggante ak sa am di jàmm ni ngay rafetalee ci fréquentation bu mu mën a doon bu la concerné ci sa biir kër si mbedd mi ci fa ngay liggéeyee bu ci nekk alquran moo lay wax nooy doxalee ak ñooñu kon loolu soo ko jàngul doo ko mën a comprendre doo ko mën a comprendre kon loolu doy na sëkk nga jàng ko looloo tax nag mu ni ci jàng gi nga koy jàng yow jaamu yàlla bi mu ni mooy tax sa islam leer mbokk yi islaam jullit bi diineem lim ko sant dafa war a leer nu muy leere mooy du ci répétition bi mais ci jëfam un jullit un musulman su ngeen nekkee su ngeen nekkee un benn journée rek yow war nga bëgg a nekk jullit waaw waaye nekk jullit boo xam ni soo wéetee yaa ngi jëw te doo jëw ku may sa nawle nekk jullit boo xam ne nee nga jullit nga te bu nit tàqalikook yow nga sosal ko waxuma sax teg parce que wax ci nit mooy jëw mais yow da ngay sax faf sos loo xam ni nam moo ca lu may ku ko gis rek dootu ko bëgg mooy moytu leen lu bari njortu njortu lu bari ci nit ñi min ni ñu ni ko lu tax mu ne inna baada zanni ismun lenn ci njort bakkaar la ci lum lay yóbbu nag wala tajassasu wala yaxtab baadukum baadan a yuhibba ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karrahtumuh gis nga yàlla fi mu jeexlee aaya bi fattaqullah <coughs> parce que yomb na nga toog ni diw de nangam loolu dafa facile mais nag ku ragal yàlla rek moo ko mën a teet moo ko mën a moytu kon loolu dafa am solo kon nag jàng alquran dafay setal dafay leeral sa sa sa ngëm ak sa diine ba nga xam ni képp koo jëflanteel bu ëllëgee mu sawar a jëflantewaat ak yow am na ñoo xam ni soo leen séenee sopp leen soo leen miinee rek waxuma ñoom mais lu bokk ci la def rek nga bañ ko loolu lu garaaw la mu ne beneen bi ci topp wooteeb yàlla bi subhaanahu wa taala e, dafay leer ci sa bopp jibril mi yàlla yabal jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran mu indil nu ko alquran rek leen mën a jàng pour comprendre ko su fekkee nag yow meuble nga ko bëgg a def woote boobu du mës ci sa bopp waaye mbokk yi mu soog a ñëw nag <coughs> ci ki koy jàng lan la mën a jur ci moom ñi ngi jéggalu dañu xaw socc rek mu na dégg nga mu ne alladina yatluunahumu lkitaaba alladina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilawa ulaika yuminuuna bihi wa man yakfur fa ulaika humul xaasiruun mbokk yi alquran ki koy jàng ñi nga xam ni dañu koy jàng waaye itam dëgg-dëgg jàng am na ñoo xam ni eh, ni ñuy jànge alquran bañ ko jàng moo ko gën al alquran yàlla def ni waratilil qurana tartilan ñu ni lu tax mu ni ndax inna sa nulqiya alayka qawlan thaqilan allahu akbar loo daan xam loo xam ne bu daan wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li koy téye ci malaaka kenn xamul nu mu toll ñu ñëw sako yonent bi yonent bi xaal bi muy nekk dafay jéggi dayo ba ba alquran di wàcc ci moom ba noppi yow nag nga defee ni da ngay toog rek doo ci daj benn coono am na ñoo xam sax danaa la man alquran ci français laa ko jàng alquran xaruf yi ko composé vingt huit lettres la français vingt six est ce que mën na joxante déedéet est-ce que vingt huit raakool mën na servir ci vingt six raakool benn bu nekk jot la mu war a jot déedéet kon loolu dafay wane ni boo ko jàngee ci français tam foog nga wut koo xam ni day ngay dem mu setalal la li nga jàng mbokk yi loo xam ni nap nabi gi nga ciy nap nabi gi ci ijjantu di def yooyu tuyaaba yi muy jur kenn xamul nu mu toll nap nabi gi yàlla da koy fay njàng mi yàlla da koy fay xool gi yàlla da koy fay effort bi ngay def pour jàng ko yàlla da koy fay kon loolu dafa jaadu ñun ñépp ñu bàyyi ci xel sonne ko moo tax ñi nekk ci daara yi kenn amul seen fay kenn waa kenn amul seen fay waaw nga xam ne dañu yor ay daaray alquran di jàngale ah, di wat fexe ba ay xale nga indi ñu di leen jàngal ijji ba tari loo leen alquran allahu akbar ah, ñu ciy ziyaar ku mel ni sunu soppee sëtu sëñ Hadi Touré boobu di sëñ Mouhamad Touré ci Kër Massar nga xam ne fii may waxee yow ña fa mokkal alquran kenn xamul nu mu toll démb rek maa ngi koy jàppale ci xale yoo xam ni ñeenti xale yoo xam ni mokkal nan kaamilu yàlla bi doomam bu jigéen di juróomeel ko loolu nekk loo xam ni kenn xamul nu mu toll ci tuyaaba joo xam ni yàlla dina ko ko defal yàlla na yàlla sàmm ko donc kon njàng mi da nga ko war a teg ci yoon teg njàng ci yoon cadda yi euh, lépp masque yi nga respecté ko xaraf yi nga respecté ko am na ñoo xam ne tey buñ doon jàng alxaqatu doo xam luñ bëgg a wax fekk alxaqatu ah fële xa la fii nga respecté yëpp euh, xëcc kazalika lu ci nekk rek nga indi ko teg ko palaasam comme sunu soppe yi niñ koy defee ci tajwid yeeg yu ca aju mu tegu ci yoon kon loolu farata ci waaye itam mu ni ñi nga xam ni ñoo koy jànge noonu teg ko def ko dëgg dëgg jàng ah mbokk yi ñooñu ñooy jullit dëgg ñooñu ay jullit dëgg la leen yàllay def ñi nga xam ne nag dañu ko weddi wala dunu ko jàng ci yoon du duñu ko teg fi ñu ko war a teg ñooñu ñoo weddi borom bi subhanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk yi ñu di leen wax xam naa nanu ubbi serveur bi su ko defee 88 600 88 628 99 80 seen rubrique boobu nga xam ne mooy xam sa rawxaan yow mi may seetaan soo bëggee xam fi nga bokk ci turaab yi ci maa ci hawaa ci naar yi suuf ngelaw ndox euh, suuf ngelaw ndox safara bu ci doon rek incha allah boo duggee en direct ñu wax la ko incha allahu rabbi taala ci biir émission bi ñuy dem kon loolu am na ci solo incha allah am na benn bu nu tànn tam bëgg ci wax muy boo xam ni ci wàllu muslaay lay dox comme nit ki foog muy musloo ci alquran waaw euh, li boroom xam-xam yi wax mooy amul dara lu mën a muccal nit te du ci yàlla subhaanahu wa taala la jóge amul dara lu mën nit mën a musloo mucc te du dafa ñëw làqu ci boroomam subhaanahu wa taala moo tax maa ngi koy wax euh, bari na ku naan la man euh, dama damay saxoo njàpp rekk dëgg la xoolal sallallahu alayhi wa kenn gënu ko woon sell kenn kenn gënu ko woon moo gën ci nit ñi yàllaa ko ko wax ah mooy ki nga xam ni jéggaloon nañ ko bakkaar yi mu def yi mu defagul kon mooy ki set ci bakkaar ak lépp luy xataayaa muy ñaawteef te kooku su demee ba nu mën ko liggéey jàpp ko kon mbokk mi yëf yi ah am na beneen jàngat yàlla dafay jàngale gis nga ba yàlla indil ko fallaxi ak naasi inchaa allahu dinañ ci tabbi lu yaatu kon alquran ak i njariñam moo tax ma ni wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun mbokk yi gis nga tey mbok mbooloom ñi nga xam ni xëy na yàlla nattu na leen nattu na leen ba jotunu jàng alquran te weesul parce que jàng bi nga juddoo la ba bi ngay dem ci kuusu bàmmeel ilal mahdi ba ilal lahdi bi nga juddoo ba bi ngay dem ci kuusu bàmmeel <coughs> jàng du wees gis nañ fii ñoo xam ne liggéey nan ba nekk ci service di liggéey <coughs> ñu baal nu dañu xaw soj ba nekk ci service di liggéey ñu fayal leen ñu fayal leen ñuy dellu di jàngaat pour lan diplôme àddina yow noonu boo ko sonnee woon ci sa diplôme yeneen ah ci alquran defe naa ni di nga am àddina am alaxira te yàlla fu mu waxee fi dunia wal axira lay wax maanaam même xadis ba defaral sa àddina ba mel ni doo fi jóge waaye itam defaral sa alaxira ka annaka tamutu gadan ba mel ni suba ngay dee kon nag kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun lim war a sonne pire xoolal tey koo xam ni jàng na ba am licence jàng ba am doctorat ci wàllu tubaab ñii ci anglais ñii ci philosophie ñii ci espagnol ñii ci lu nekk nga diplômé ci su la la alquran nga ni ah man de jànguma ko te yow bu xëyee mbooloom soleil yi nekk ci réew mi nga liir leen ban jeex waaye tayye la ñëw jàng benn xisibu alquran jamono bii ñuy dund nag am lu ko remplacer lu doya doya doy waar muy téléphone yi sëgg ci whatsapp yi ah, sëgg ci facebook yi ah sëgg ci messenger yi sëgg ci euh, yu nekk nga mën ci def ay waxtu te temps boobu nga waroon ko def ci jàng al alquran waroon ko def ci nafar alquran waroon ko def ci jàng sa waqaf sa jukki kon nouvelle technologie bi gàllankoor yim nu indil dafa bari gàllankoor yooyu nag day dem ba sa àddina sax dafay yàqu waaw parce que dafa war a nekk ay moyen yoo xam dañ koy utiliser parce que lépp loo gis ci àddina euh, muy moyen soo ko utiliser ci jaamoo ko yàlla moo ëpp doole lépp loo gis nag laa wax ah, amul lenn loo xam ni Euh, moyen la mu baax te fekk du ci jaamu yàlla la gën parce que tey bu njëkk xoolal ñoom maam Seydi El Hadj li nu dox daan jàngi dox réew ak réew jàngi dem dëkk yi xoolal fii tey euh, maktabatu chamila am na sax yu ko gën a euh, bees fi nga toog ñu indil la ay bi kii boo xam ni douze mille douze mille téere ñi ngi ci nekk fukki junni tomb yoo xam ne bu ci ne da nga ko waroon wëri ñu def ko eh, defal la ko ci benn loo xam ni da ngay servir rek jot ci loo soxla nga xam ko ci saasi ah yooyu moyen nag dañ ko war a utiliser ngir xam-xam ah ko aussi ngir jàng al alquran ak gën ko leeral ak yeneen donte ni yeneen yi ni koy utiliser am na ci yoo xam ne ayut waaye ñu bañ ci rek lap bu mu ëpp kon loolu benn la waaye maa ngi tolloon ci ki nga xam ne daf koy bu nu koy jàng day déglu xam nga xadis ba dafa wax adibu awlaadakum ala thalathati xisaal yar leen seen doom ci ñetti jikko ñu ni ban xubbi nabiyikum wa xubbi ahli lbayt wa qiraati alquran allahu akbar bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bëgg yonent bi maratib la xoolal Cheikh Alxaaji Malik mbooloom daraja bu mu am ci àddina rek ci xam-xam ak lépp darajay bëgg yonent bi ci la ko yàlla dimbalee xoolal ni mu toll ak li mu liggéey ci yonent bi sallallahu alayhi wa doo gis kenn ci àddina bi laa wax àddina bi ku ko gën a bëgg yonent bi ndax doo gis tam li mu bind ci yonent bi ku ko bind ci àddina bi ci àddina bi laa wax kon loolu dafay teg tegtale ni bëgg yonent bi dayo la xoolal maam borom Tuuba dem ba tudde boppam xaadimu rasul kon kooku bëgg yonent bi munu ko paase te mbindaanu yonent bi martaba munu ko féetee kaw ah loolu ñoom maam Baye Niass ñëpp mag ñi ci réew mi kenn ku ci nekk maratib bu mu toll rek bëgg yonent bi moo ko fa yóbbu mu ni ak lan xubbu nabiyikum wa xubbu ahlil bayt bëgg waa yonent bi xoolal tey mbooloom koo bëgg xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nit mën a woy nga daanu xëm allahu akbar cofeel boobu bu nekkoon ci yow ci yonent bi nga texe sa njaboot texe cofeel boobu bu nekkoon ci yow ci bëgg yonent bi nga texe sa njaboot yépp texe ak fu mu mën a ne ci àddina bi ah kon bëgg waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ak ban muy bii ñuy waxtaane jàng alquran allahu akbar nga am doom yóbbu ko ca daara ja ñëw ni sëriñ Mouhammad Touré kii kat dama bëgg nga jàngalal ma ko mu mokkal alquran dégg alquran allahu akbar xoolal sëñ Mouhammad bindal ko baa siin mémar muy ku mësta jàng mu ni baa ñu ni ko baal nan sa yaay mu ni siin ñun ko baal nan sa baay mu ni mimara ñun ko baal nañ képp ku askanoo ci sa ndey ak ci sa baay allahu akbar yow sa doom nga jël ko yóbbu daara ja premier bis laa wax ñu toog teg ci lu pom àlliwa ñu baal ko loolu lépp nga jël sa doom yóbbu ko ci daara ja ci Tiwaawan ci sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz mu jël ko teg ko ci loxo Pap Ndaw ñu indi ko ci daara ji ah teg ko ci loxo kenn ci waa daara ji xëy na maam Ousmane si xëy na keneen ak keneen ñu jël ko teg ci luppam ni ko baa siin mi mara yow nga texe ndayam texe baayam texe askanu ndayam texe askanu baayam texe allahu akbar waxuma nag mu nekk fa jàng ba mokkal alquran boobu tuyaaba kenn xamul nu mu toll dañu wax ne xale yi ne ci daara di jàng alquran ñoo tax ñoo tax yàlla subhanahu wa bu ko ñëpp tooñee ba mu bëgg lem dëndam bi bu gëstoo seen leen rek rus leen ba bàyyiwaat nit allahu akbar kon loolu dafa nekk lu am doy kon bëgg yonent bi bëgg waa kër yonent bi waaye bëgg itam jàngkati alquraan yi bañ leen rek def utilisateur tey soo amee dëj woolu imam bi ci koñ bi oustaz bi ci koñ bi mu jiital ñoo xam ni kenn ku ci nekk juróom-ñaar fukki malaaka ñi ngi ko topp muy xale yooyu nekk ci daara ji di jàng nga indi leen ñu jàngal la kaamil nga génne kat léeg ñaari junni mbaa ñetti junni jox leen defe ni yaaray gaynde gi allahu akbar fekk li nu ñëw jàngal la benn xaraf bi bu ko àddina bépp doon jàppoo du nu ko atten li mu ñëw jàngal si la moom la yàlla waxoon ni law anzalna hada al quran ala jabalin la raytahu xaashian mutasaddiqan min xashyati illah yàlla ni wa tilka al amthal nadribuha linnaas laallahum yatafakkarun allahu akbar yàlla ni alquran ji su ma ko wàccee woon ci doj yi dañuy exploser ah waaye itam dañuy jooy ngir ragal gun ragal yàlla subhaanahu wa taala nga gis ñuy jooy ngir ragal gun ragal subhaanahu wa taala allahu akbar nga jël ko sol ko ci dënnu xale kooku kenn amul ci àddina sa pay kenn amu ko waaw kenn kenn amu ko waaw moo tax sunu sëriñ bu bu mag bi xafidahullah ñi ngi koy ñaanal yàlla muy sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñun ñii moo nu jàngal ba nu noppi ci loxoom yàlla xam na ko waaw keroog maa ngi fàttaliku bi may tari di muy bind bi mujj ci alquran muy amana rasul ma tari ko ci noppam yu tedd yooyu le mais ñooñu addina moo tax euh, euh, bu nu xalaatee rek yàlla ànd ci mu defal ko nag ay ju millions millions nit ndax ñi jaar ci daara jooju ba mu sosoog léegi kenn xamul ñun bin fay nekk rek ëpp nañ trois cent personnes xaw ma quatre cent ëpp na ko te ñëpp tari nañ mbooloom koy gis actuellement muy wax ci télévision yii ñu rafetlu xam-xamam bokk na ca sama xarit docteur mam Ousmane Ndiaye maa ngi koy ziar ah bokk na ca eh, ña des ay ñoom mam Ousmane si ah ñoom Mor Daba si sama sëriñ ah ñoom Ibrahima ca fu nekk ci àddina bi maa ngi dem Gàmbi fekk fa ay imaamu ratib yu mag waaw julli seen ginnaaw rek musulman boo joxee loxo mu ni Tiwaawan laa génne ñooñu nag ñuy ñaan sunu sëriñ yàlla dëgëral ko sàmm ko aar ko ñu itam profité ci sunu ndey daara yi ñoom yaa Lalla ñoom yaay nday Mareem ah ak ñi nekkoon ci daara ji yëpp ñoom soxna Zeynab si ñoom soxna Fat si ziyaara leen bu baax a baax a baax kon mbokk yi waa Rési xanaa téléphone bi dafa euh, doxul ah ñi nga xam ni ñi ngi bëgg a bokk ak ñun émission bi pour dugg ci mën na woote 88 628 99 80 suñ ci wootee incha allah eh, xam naa ni téléphone bi ñàkkul dafa am ay rëq-rëq waaye tam ñu continuer rek eh, waxtaan su ngeen insister rek incha allah di ngeen dugg bi soobee yàlla kon loolu mooy alquran ki ko jàng nag nga indi ko léeg-léeg mbokk yi nga nekk ci dëj ñuy jàng kaamil ku ne ñii di dugg ak a ñii di wax léeg-léeg mu nekk tudd ñuy jàng al alquran ñii di dugg ak a génn ñii di wax ñii di déedéet léeg-léeg nga gis ku ko jàpp ci këram di waxtaan alquran soo demee ba bëgg a waxtaan na ko fay waaw ah, wala nga wàññi ko ba déggatoo ko waaw ah, ndax alquran suñu koy jàng yàlla subhanahu wa taala daf nu wax ñu déglu ñu déglu déglu nag ñaar la déglu digle yeeg tere yi ak xupp yi def digle yi moytu tere yi tiit ci xupp yi def digle yi li nga ci mën moytu tere yëpp waaye tiit ci xupp yi loolu su amee ah bàkke alquran dafay wàcc ci sa kaw am na ñoo xam suñ bëggee def bàkkaar sax duñ ko mën ndax barke alquran ci ñoom am na ñoo xam suñu bëggoon a def bàkkaar duñu ko mën ndax barke alquran ci seen kaw ñooñu nag mooy ñi nga xam ni euh, ulaika yumu eh, yuminuuna ulaika yuminuuna bi waaw waaw wala xaqatila ulaika bihi mooy ñi nga xam ne dañu koy seet jàng ko waaye itam beneen bi ma ci bëgg a dolli mooy mbokk yi képp ku bëgg a téye nga ànd ak njàpp ku ko bëgg a jàpp nga ànd ak njàpp ku ko bëgg a jàng nga ànd ak njàpp ndax téere la boo xam ni tanzilun min rabbil alamin laa yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin moo tax jàmbaar islam yàgg na am jàmbaar ca xabaab xabaab ibnul arat waaw ba muy jàngal fatima bintu amar ibnul xataab euh, euh, sëru amar ibnul xataab ah ca ba taaha wàccee maa anzalna alayka alqur'ana li tasaa illa tadkiratan liman yaxsha ah mu koy jàngal ndeysaan mu tuub dugg ci diine ji di ko nëbb ah waaye keroog ba mu woowee xabbaab mu di ko jàngal Omar di dox ak xadar gaag jëmm jaag doole jaag personnalité jaag ndeysaan mu dugg ci rek xab xabbaab jël téere bi rek lem daw rek dugal ci suufu njegenaay bi mu dugg see mu ni ko lan ngeen doon wax sœur bi ni ko dara mu ni ko bi may ñëw dégg naa leen lan ngeen doon def duur sër bi bi deret ji kii ak jigéen ak ni ngeen ko xamee su meree rek daldi di fipp ndeysaan ni ko dem tuub naa dugg ci diine yonent bi waaw bay jàng alquran mu ni ko indi mu ni ko mukk la yamassuhu illa almutaharun te lii tanzilun min rabbil alamin kii doo ko laal ndax ku laabul du ko laal ndeysaan foofu Omar bi mu bëggee ndeysaan booba virus ba dugg na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan pour ñaari omar yi ñaari omar yu lëj la woon ndeysaan waaw kenn ki waaye kenn ki naan booba ba jaaxaan ki ci des defeenu waaw moo tax foofu la mag ñiy wax kuy tëdd nga bañ a defeenu soo defeenoo ñaan yi jóge kaw asamaan fajar ak wërsëg yi doo ci jot léeg-léeg nga gis ku ñàkk wërsëg yépp lool fekk dafa am yu muy def yoo xam ne dafa dëppoowul ak am wërsëg waaw ah, dëppoowul waaw ah, bokk na ci jël sa catu mbubb di ko fompe say bëñ walla jël morso di ko fompe say bëñ ku koy def da ngay ñàkk wërsëg bokk na ci di dox di diri say tànk waaw ah, am na jigéen ñoo xam ne danga leen di takk si rek waxtaan ba noppi bàyyi am ñoo xam ne dañuy dugg ci ñoom ba pare découvrir yoo xam ne dangay bàyyi waaw que nag sama bopp ma la gënal du bañ naa la donc yooyu nekk yoo xam ne dafa dafa yéeme dafa yéeme donc su ko defee nag yooyu dafa mat a bàyyi xel waaw su ko defee ak tëddi defeenu omar bee jaaxaan bii defeenu ñaan nga dal kii kon sababu ñaanuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la sababu tuubam jaare yonent bi lu mu ñaan yàlla def kon loolu dafa may mat a bàyyi xel bi ci des mooy di jàng alquran di ko déglu di ko jàng waaye itam di ko xerewlu comme ni ma ko waxee léegi nga xam ni lépp lu alquran wax rek yow pare nga ko def lépp lu alquran digle pare nga ko def ah bàyyi ci xel ci lépp nag loo xam ni alquran digal na la ko waaw ah, kon loolu mooy li jaatu moo tax yàlla ni innama almuminuuna alladina ida dukira allah wa jillat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun ñi nga xam ne gëm nañ yàlla di jàng alquran wala di tudd yàlla yàlla da ngay gis seen xol yi dafay dafay dafay dund mbokk yi nit ñi soo gisee léegi ñaawteef yi bari dafa bari ñoo xam wolof day wax lu la naqari sa waay rek diine ja moo des diine ji moo des bari na ñoo xam ni li tax ñu am sañ-sañu dab nit nangu alalam parce que seen xol leer nekkatu ci bari na ñoo xam li tax ñu dab nit nangu ko rey am fit wi am xol bi am néeg gi c'est parce que seen xol yi moo dundatul ci alquran li tax nit sañ a toog yëkk nawleem lu mel ni xeme te tegu ko fenn ñu seen xol yi moo dee moo dundatul moo àndatul ak leer li tax nit nit sañ jël nit mu ñëw jëflanteeg moom mu lekk alalam bi xayri tibi nafsin ci lu dul tey bakkanam loolu xolam moo dundatul xolam moo dundatul te loolu xoolal ni mu baree ci jamono bi nit gëm la ngir yàlla ñëw jox la alalam nga lekk ko aklu amwaali naas bi gayri tibi nafsi wala aklu bi shafaa wala aw bi diin allahu akbar ah nga xam ne yu yëpp bu saxaw parce que jullit bi su nekkee dañ koy defal ci xolam ñaari tomb ñaari tomb ñaari tomb yooyu nag benn bi bu leer la benn bi bu lëndëm le fait que muy dund di rafetal bu weex bi di yaatu bu weex bi di yaatu le fait muy dund di rafetal bu weex bi di yaatu bu muur bu ñuul bi le fait muy ñaawal bu ñuul bi di yaatu bu ñuul bi di yaatu ba nëbb bu weex su ko defee nag loolu indi mu nekk koo xam ni dootul am yëg-yëg ci digganteem ak boroomam ñoom la alquran di wax ni summun bukmun umyun fahum laa yarjiun ca aw ka sayibin min as-samaa fii zulumaat ca alif laam mim al-kitaab nga xam ni e, gumba nan lu boo nee gumba taxlu nag nit ki day xool te fekk dafa gumba nit ki day wax te fekk dafa lu nit ki day e, dégg te fekk dafa tëx xam nga ki xool te du gis lu baax du jëmale bëtam ci lu baax lépp luy aw rey nit ma ngi koy xool lépp luy euh, safaan ma ngi koy wax kooku dafa gumba dafa gumba parce que bët yi ko yàlla jox njariñ li bët am mën koo jural nit moom dépensé wu ko ci moo tax sunu mbokk yi nga xam ni yàlla dafa dogal ci seen dund ñu silmaxa ëllëg aljanna la ñu yeewoo waaw ah, loolu lu leer la waaw képp kuy dund ba yàlla dogal silmaxa dab la booy boo yeewu aljanna nga yeewoo si yal na leen ko yàlla defal ndax mbooloom bakkaar yi nit di def suñ ci génnee li bët def li ci des du mat dara parce que bët mooy xool lu xaram bët mooy gis soog a xalaat bët mooy gis soog a bëgg bët mooy gis soog a topp bët mooy nangam mooy nangam moo tax waa ji euh, ba mu demee ci àll bu xonk coy di fa wéetal boromam subhaanahu wa taala mësul mooy yàlla ci benn awraam mu ne fa di wéetal yàlla di wéetal yàlla ba nga xam ne day bay dundee bu dundee jëlu lukki lekkul dara loo xam ne dafa jur lu xaraam ci boppam bi mu dee comme yooyu yëpp def na ko ah ñu ni ko waa yàlla ni ko di ko àtte ni ko ma àtte la ci sa jëf wala ci sama yërmaane mu ni ko déet ci sama jëf ndax moom jàpp na ni dundam yépp daf ko wéetal yàlla yàlla ni ko ah mu ni ko waaw yàlla jël bët rekk bët bët rek njariñ lim ko jural waa ji jëfam jeex na bu yàgg te bët bi yàlla téye di càmbar suñ ko xaajee eh, ñeent fukki xaaj benn bi sax jeexagul mu daal ni ko déet déet déet déet suñ borom ma ci sa yërmande loolu dafay tegtale ni xoolal tey nga jékki-jékki rek daray daw wut si la nga daw mën ko fente loolu bët moo ko mën ak yeneen waxuma moo tax soo ko amee li ngay def mooy jaamu ci yàlla jaamu ci yàlla waaw kon nag xol bi nga xam ni euh, moo nekk ci yow su fekkee gumba nga tax lu xol boobu dootul liggéey dootul liggéey parce que am na ñoo xam ni seen xol mënta bëgg sax ku baax tey soo baaxoon léegi yaay seen noon waaw ak koo doon yow la ñuy noonoo di la xeex di la sonal di la indi li problème te loolu lépp cheytaane mooy gumbaloo seen xol tëxloo leen luuloo leen ba doon am na ñoo xam seen gémmiñ gii mënta wax lu baax suñu gisee mu am na ñoo xam ne même ci biir famille la ñuy nekk ci famille laa wax mais seen rôle mooy tappase suñ gisee ñaar ñu waxtaan ba déewante seen àddina yàqu na waaw nun mën a def pour yàq loolu dinañ ko def nun mën a def ba yàq loolu dinañ ko def am na ñoo xam yàllaa leen bind ñu nekk ay soldaari seytaane lu nu def rekk loolu la tax loolu dafa bari ci jamono bi da gis ñaari frère yoo xam ne du nu tuddante du nu seet kenn ku ci ne yéenewul sax am jàmm am koo xam ne day nekk ci famille tane ci tane ci moo xam ci tur la tane moo xam ci wërsëg moo xam ci relation xoolal ay intoxication rek lañuy ñuy ràbb jëmale ci moom di kompaloo ver moom et cetera waaye bu boobaa moom na doyloo yàlla te rafetal nag bu mu leen topp kii ñaawal jëm ci yow fekk yaa ngi rafetal yaa koy tane ba yowmal xiyaam kii ñaawal jëm ci yow fekk yaa ngi rafetal yaa koy tane ba yowmal xiyaam am na koo xam ni keroog wax na ma ko ni ma dem na ba mook frère am wala mook sœur maanaam ku mu bokkal daal mu ni dunu sax seetante ma ni ko nag na ngeen retrouver wu nu mu gën a gaawe ma ni ko gis nga yow say doom koo noonoo ñu noonoo ko moom ay doomam ku seen wëy jur noonoo ñu noonoo ko te gis nga noon yooyu te dund yàggul da ngay dund quelque temps nga dee bàyyi fi sa njaboot keneen ki bàyyi fi njabootam gis nga loolu nag ngeen dee dem noonoo boobu di continuer ilaa yawmi diin allahu akbar kan moo attan loolu ci ñun ah parce que soo toogeeg sa doom sa tontoo diw de nangam soo toogeeg sa doom sa bàjjan diw de nangam soo toogeeg sa doom sa tante diw de nangam yooyu nag finalement xale yi di ko capter te xale du fàtte te xale jàpp na ni baayam du fen jàpp na ni ndeyam du fen jàpp na ni baayam a mën ñëpp jàpp na ni ndeyam a dàq ñëpp léegi nag yooyu ñu formé ci looloo tax àddina bi ñu ne noonoo yi bari te mbokk yi nit ñi duñu ay noon inna cheytaana lakum adu fattaxiduhu aduwa cheytaane mooy sunu noon waaye dangay gis tey ku gis même estati téléphone yi noon noon noon noon ba kañ te kenn ku ci nekk yàlla daf la wax même ki ñaawal jëme ci yow démystifier ko nga jàpp ni dafa juum nga rafetal jëme ci moom waaye tey gënoo maa bon gënoo maa réew dàqoo maa saaga dàqoo maa def lu ñaaw nangam nangam ñu bëgg ko dund ba kañ loolu nag ñuy dund dafa dem ba yóbbu àddina bi ak sunu réew mi ci lëndëm même kilifa yi kilifa yi tey dañuy def kilifa goo xam ni yow ki ngay xeex waxuma yow waaye sa dàll sax xajul ci moom kooku su la déranger seetal sa bopp ci wàllu yàlla ah yow koo xam ni yow lay tiitaroo ah waaye soo ko gisee sa àddina tukki yow seetal sa bopp ci sa wàllu yàlla ak koo doon yow kilifa étatique koo xam ni sa benn euh, agent ci police wala gendarmerie xajul ci moom ah mu teelaa nelaw ku yab soo yaboo nga seet sa bopp ah moo tax léegi àddina bi dafa lëndëm ndax yàlla doole yi mu dénkaane yëpp ñi ngi koy xeexi te yow koo mën a tëj rek tëj ko noonu tam la population bi di xeexante population boo xam ni ku ci nekk bu ñëwee sosal moroomam rek yow boo ko rombee dootoo ko bëgg a nuyu ñu ni nag ay jullit lan lu ko waral sunu xol yi moo dundatul lu tax dundul duñu jàng alquran duñ ko déglu duñ ko settantal c'est grave ah tey jii sama baay diw sama tontoo diw sama maam diw kee sama bàjjen diw sama tante diw sama umpaañ diw ñu nekk ci kër yi kenn ku ci nekk di xeexante jàppe sa bopp noonu ba finalement kër gi boo day lëndëm parce que fépp fu seytaane di yenn dootul am leer leeru seytaane nag Euh, leeruk yàlla bu nekkatul foofu lëndëmuk seytaane mooy ñëw mooy kër goo xam ne ñëpp ngi liggéey te kenn mënta am dara seetlu li ma lay wax kër goo xam ne ñëpp ngi xëyee ko wàcc te courant bi bis bu ne ñu coupé ko am na lu xew nan seet seen bopp koñ boo xam ne ñi fa nekk ëpp na ñeen fukki nit te ñeen fukki nit fu ñu daje am na benn waliyu bu fa yàlla denc ah ñu toog koñ ba mënta màgg am na lu xew mënta naat am na lu xew ah? mënunoo jàppalante am na lu xew kon yàlla def nu indil alquran pour ñu sukkandiku ci raxas sunu xol yi raxas sunu xol yi waaw raxas sunu xol yi am na koo xam ni léeg-léeg da lay da lay da lay gis moom sax mbaax moom du ko nangu ilaa yawmil qiyaama te sunni woon benn bu bon ci yow moom moo koy jël sa partagé ko képp ku mu xam ci ci ci ci ci whatsapp am waaye gis nga bu nu waxee lu baax da koy sëgg parce que lu baax itteelu ko lu baax itteelu ko bu sañoon du ko dégg ah yëg na nga gis koo xam ne tam da koy naw lool ndax mbaaxam ndax yiwam ndax tabam ndax foo ko teg erreur tax nga yéemu ci yàlla waaye nag bu boobaa yow na nga jàpp ni soo déggee ma ni erreur mooy nit du bon ah, amul kenn ku yàlla bind ku bon nit tam ku mu baax ci yow rek safaanu na ci keneen lu ma bëgg a wax mooy am na koo xam ne tey ni mu waxtaaneek yow joxe fi attaaya noonu la demee dugg ci kaar bi wàcc xuloo fa nit moo mel noonu dafa am ñaari température mais nag température yooyu nag dañ koy varier yow it nga di ko comprendre su ñëwee tey romb na ma ah nuyuwuma ma ni ah sa waay de tey xanaa daa tardé ah sa waay de tey ah xam naa ni daf maa gisul nga def noonu nag wutal ko lay waaye su nee diw rek nga ni ah ku bon su nee diw nga ni nangam loolu rafetul jullit waru ko mel nan éviter mel noonu yàlla mi nu bind bëggul loolu te xam na ni loolu jëmalewunu kanam yàlla mi nu nu waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci buumu yàlla gi te bu ngeen tàqali ko bu leen tàqali yàlla moom ànd rek la bëgg ci ñu yow mii di ma seetaan li nga bëgg ci sa njaboot moom la yàlla bëgg ci yow ak sa moroomu julliti tey borom kër bu ne bu sañoon njabootam yépp ànd suudewu nekk benn yàlla loolu la bëgg ci yow ak sa voisin bi yow la bëgg loolu la bëgg ci yow ak sa collègue bi ngay liggéeyal yow la bëgg loolu la bëgg ci yow ak chauffeur tata bi nga dugg client bi nga ci dajeel ngeen ànd te fi ngeen jëm soriwul léegi ku nekk wàcc feeñal jikko jaru ko loolu la bëgg ci sa nawle bi nga dajeel ci kaw tali bi moo xam da laa mbëkk wala nga mbëkk ko wala ngeen fa wala ngeen daje wala ngeen kii ku ne war a may moroomam loolu la yàlla bëgg kenn ku ne yéene moroomam mu àgg ci jàmm su nu ko defee tali bi jag su nu ko defee kër yi jàkk suñ ko defee mbedd mi jàkk suñ ko defee àndandoo yi jàkk suñ ko defee lépp teguwaat ci yoon lépp teguwaat ci yoon kon loolu mooy li nga xam ni moo war a am moo war a am tey sunu téléphone bi dafa euh, normalul lekk moo tax euh, amu leen téléphone bi ci ligne bi mais incha allahu rabbi taala xam naa ni xëy na fii ak émission bi jeex des na di ngeen mën a dugg pour seen rubrique bu am solo boobu di euh, euh, nun koy waxee euh, wàllu tabiayaat boobu nga xam ci 88 628 99 80 ngeen ci ànd ak ñun kenn ku ne bu duggee rek wax lim bëgg a xam ñu wax ko ko fi mu bokk incha allah kon daal mbokk yi loolu moo war a am ñu bëggoon waxtaan nag tuuti ci lu dimbali nit ñi ci xew-xew yi am mbokk yi léeg-léeg léeg-léeg nit ñëw nekk ci tolof-tolof yoo xam ne daf ciy bëgg yàgg nag waaw tolof-tolof yoo xam ne ba mu ci nekkeeg léegi ah mbokk mi yàgg na loolu nag su ko defee bu fekkee problème yi àddina la tëjoog yu ca aju ah dafa am loo xam ni fooraayam foo ko takk weesu na ko muy watiini ba naasi waaw waa daara ji xam nan te dinañ koy déggit te kilifa yu bari du fend ci seen yaram watiini ba naa si nag euh, am na ñu koy wax parce que ñaar fukki saar la mais soo ci boolee fatiha day nekk ñaar fukki saar ak benn am na ñoo xam suñ ko bindee ba pare bu dee daala dañ koy dammee dañ koy bindee euh, ñaar fukki xalima ak benn suñ paree damm cati xalima yi lakk ko def ko ci saafara bi sangoo lépp luy luy cat cat bët làmmiñ ak yu ca aju moom ci nga ciy pare da nga ciy pare dootoo ko am watiini ba naa si mooy sóoratu tiin xam ngeen ko sóoratu charxi xam ngeen ko qadri euh, bayina zulzila adiyaati euh, qaari'a takaasur asri humaza fiil quraish mauna kawsar kaafir nasri masad lixlaas falaxi naasi loolu mooy watiini ba naasi boo ko ubbee fatiha nag moo tax dalay jox ñaar fukk ak benn mais bu dee liimalim ñaar fukk la su ko defee baax na ci taalibe baax na ci kuy dund te bëgg fi yàgg bëgg yu bari dañ ci moom parce que dafa dugal mbooloom saar yu bari yoo xam ni day dimbali nit mbooloom saar yu bari xam nga falaxi naa wax nan ni mooy mu muawidatayni mooy falaxi ak naasi waaye amul dara lu nit di jooy ci àddina te amul yoon woo xam ne ci falaxi ak naasi su ko defee mucc ci lool ki lay xeex kila la iñaane ki sosal ki tëj ki la sonal ki bëgg def nangam ki lay tooñ lum ci doon soo ñëwee ci fallaxi naa si mu lum ci doon laa wax ak ku mu doon ak fu mu doon fallaxi naa si moom boo fa ñëwee rek mooy daj dëpp mag ñi nag dañ ko doon faral di liggéey quarante ans yi soo ko defee soo ko bindee ba nopp gis nga nga wut xay xay xasu xay togg ko ba mu yàbbi nga def ko ci saafara bi sangoo ko mbokk mi amul dara lu muy bàyyi ci sa yaram su fekkee tam yow mi nga xam ni mën nga ko def ginnaaw tàkkusaan waxtu wi may waxeeg ak yéen su tàkkusaan jotee ba nga julli ba sëlmal nga toog def ko 41 mbokk mi liggéey bu nekkoon ci sa yaram toj na te sax yow mi may déglu soo ko defee léegi rek di nga yëg cawarte goo xam ne dalay yéem am na ñoo xam ne dañuy euh, tayel tayel soo yeewoo tayal soo demee ci biir bureau liggéeyukaay bi lu fay café di nga ko naan te du tax nga sawar yooyu nag léeg-léeg cat da koy def mbokk yi te nit day catu boppam gis nga léeg-léeg ma ni liggéey sax ak yooyu euh, li li li li muy jàpp nit léeg-léeg mën na bañ a bari mais cat moom nit ki da koy def boppam léeg-léeg da ngay gis koo xam woy juram a ko catu ah sama doom ji de léegi ah ma nga fale léegi de Nations Unies la nekk léegi nammatuma dara moo may nangam moo may nangam ah léegi-léeg nga gis koo xam ne danaan kër gi de léegi xale yee ko yor alsaaney fay nangam diw nangam gis nga làmmiñ yooyu loolu tax mag ñi bu njëkk dañ lay wax du ma la gërëm dama lay ñaanal yàlla sa doom danga koy ñaanal yàlla parce que sa làmmiñ bu ko jàppee amul ku ko mën a faj looloo tax léeg-léeg tam ñu nit ñu am ci aada yu bona bona bona bona bon mooy suñu amee xew ñu toog nit ki toog ci géew bi ku nekk jël wax am na xew bu ma ci dem jamono yee ku ne wax ñu jox ma parole ma ni leen daal nit lim baax le lépp ku ko tudd lu ko dal yow la nit parce que kii day jël diw ku baax la moo ma nangam yaay ji jël dara metteetuma moo gàddu kër gi moo nangam papa ji jël moo nangam allahu akbar jëkkër ji jël moo nangam ah voisin bi jël moom kat nangam seede baax na mais seede danu koy limité ah, du ëpp nit kilim baax la lépp soo ko waxee lu ko dal bu ci génne sa bopp ak koo doon waaw ah. moo tax yooyu mat nay moytu moo tax nit fu mu toll comme yooyu mënta ñàkk ci suñu culture la bokk parce que tam bu nu dajee ci xewu nit ku waxul tam ah mu mere la waaw ah. parce que euh, dégg naa ci sama benn soppe mu ni way juram moo ko waxoon muy sëñ Habib Sakho mu ni bàyyi Ibu Sakho moo waxoon ni bu ñuy wax sa mbaax bu ñuy waxal nit ki lu baax ku xool montre am rek noonam nga parce que montre moom ku ko xool mooy wax jaa ngi bëgg a bari kon loolu dafay tegtale ni ci sunu culture la bokk waaye moo tax nag cat moom bu ko bañ di utiliser ci sa ci sa giiru dund ci sa giiru dund mais nag li gën nga dem ci ku ko mën nga ni ko ah man kat lii ak lii ak lii ak lii laa bëgg mu defal la ko mu tegu ci yoon mbokk yi ku nekk ci ñi may seetaan su ma ni woon léegi euh, espace sàngam dañu fay joxe ay oto du ñëpp mën a jël dem jël oto dawal dem déedéet am na ñoo xam bu nu àggee dañ leen di wutal chauffeur mu toog ci kanam dawal ñu soog a dem waaye loolu li ma bëgg a wax mooy dafa am lu nekk dafa am ku muy domaine su la jaaxalee demal ca moom nga wax ko ko mu dimbali la ci loolu dafa am solo dafa mat a bàyyi xel kon yooyu dafa dafa dafa am solo waaw kon fa ak naasi noonu la mel bu dee wëttiini ba naasi nag du bàyyi cat du bàyyi liggéey du bàyyi xeex du bàyyi dara mais nag dafa am par catégorie ki ko bind ba mu àgg boole ko ak reeni paftan reeni paftan ku la liggéey reeni paftan nga boole kook moom liggéey bu nekk ci sa yaram tas na ki ko bind nag boole ko ak xay boole ko ak xay moom it bari na lu muy dindi ci loo xam ni lu ñuul la parce que liggéey dafa bari façon dafa bari façon am na koo xam ni dafa dem jàpp ba sell ñaan na yàlla ñaan yàlla googu dal la mën na yàq lu bari ci sa àddina am koo xam ni dafa ñëw dog murabba déchiffrel sa tur dugal ci am koo xam ni dafa dog euh, Euh, mu mu sallas moo xam bu mu doon daal di koy kii jël àndam suul ko teg ci àll wa teg la ci ngay sënd mooy ñooñu nga xam foo leen fekk ñi ngi wopp woppi tayel ah, parce que sa deret fu la fekk ah day day sënd yow sa bopp doo nekk xam nga bi nit soxla bu ko dépassé mu wopp fu ne ñu yóbbu la fa fekk ab saay-saayee ko def am koo xam ni parce que mës naa gis nit mu am lu muy wut allahu akbar ma xool ko rek ba mu génn ma dab ko ma xam ni loolu wallahi ma di ko waar di ko waar ba mu këpp ko sama kanam te bu ko utiliser woon la ma ca xam kooko du dundaat journée boobu muy dereetu dëj am luñ koy bindee buy fen di ngay faatu ah, dama ko gis rek gars yi rend rek mu jël benn kii dékk ko ma bàyyi ba mu génn tëj ko rek ma dab ko ni ko sëñ bi lay doyee lii mun ma déet dama ko soxla ma ni ko lii lépp lu ko sum sóob rek jaru ko ma ni ko te yàlla xam na ni jaru ko di waxtaan ba léegi sama xarit la xam naa mi ngi seetaan <laughs> sama xarit la te wax nañ dëgg nag gis nga léeg-léeg nga tooñ nit fekk la mu toogaale bu ko laalee àddina tukki am na xeeti xam-xam yoo xam ni du may nit ki sax ay minute billahi allazi la ilaha illa huwa nga mën ci def jëyya mais moo tax mag ñi pour ñu jàngalaan la yooyu dañ la daan defar ba sa xol ku ne mën a tooñ nga mën ko muñ koo joteel mën ko muñ bari na lu lëmbe ci réew mi fekk eh, xam nga fi ma la koy misaal mooy tey jii soldat buy soog a jóge quartier du baal kenn ah te pourtant commandant bi bu la fa fekkoon nga def lool mën na la ni bul gaareeti fii wala nàngam waaye xoolal kee moom buñ leen indee stade yow am nga billet amul billet bu la nee jógal fii rek waaxul dem bul expliquer soldat bi nu indi ci wala ñu zaro na leen ci tali bi bu la nee eh jugeel foofu yow annièral jugee fa bu jekk su fekkee da nga bëgg a def dara foofu waaxul ba ci commandant nga ni ko ah kilifa gi mu ne ah, ngeen ko man de dama bëggoon taxaw fii am lu ma réglé fii danaan la waaw soldat soosu nag ni ñuy tàngee ba pare tàng ñu jàngal leen xeex yoo xam ni appli ko ko rek leen bëgg caay-caay gu nekk ci loolu gu ko raw mi ngi ci daara ci waaw am na ñoo xam ni billahi li des ci ngoon gi bu leen neexoon li des sa dund yépp yàqu waaw ah. mais nit gisoo fii léegi nit euh, fekk euh, benn algam euh, mën naa fekk nit ci tali pourtant moo ko moo ko ni merde su ko nee merde kooko fayu ah donte ni moo ko tooñ wala mu mbej ko mu fayu mu yóbbu ko commissariat <laughs> mbokk bi di dañ ko mbugal ah yooyu nag dafa am fépp ku ne rek ak ni muy tojee bopp janaxam moo tax mag ñi bu jëkk ñuy moytu surtout nag capital nga xam façon nit bu nekk fi ne am na ñoo xam ni ñi ngi fi mënunoo muñ dara te yàlla tëbb na leen ay wilaya yoo xam ni kenn xamul nu mu toll am na koo xam ni day génn comme euh, par exemple ñu baal ma nag sama mbokk om de tenue yi danoo xaw a bokk ay <laughs> ay ay ay ay ay mbir ndax formation bu dëgër bu xereñ bu nekk ci ñoom moo tax may jël misaal gis nga ni ni ni ni ni ni euh, amee ñoo xam ne ay paysi la ay paysi maan nga xam ni euh, boo leen gisee suñ la nee jugal fii sax nga dóor leen arrêt fekk boo leen laalee yàqu noonu la amee ñoo xam ni yàlla noonu la leen defee tabb leen ay wilaaya yoo xam ni danoo fees dell ak galon te billahi allazi ku leen dóor épaule sa àddina yàqu yooyu nag dafa jaadu ñu di ko wax pour que nit ñi di moytu di moytu léeg-léeg nga jaar ak nit foo xam bëggoo fa woon jaar waaye xam nga ni kilifa gu toog wala ponkal mu toog nga ñëw wan ko ni ko man dama entraîné ba ceene ah moom it mu wan la ni la man it daara ja dama fa tarbiyu ba ceene ah nga xam ni yow maari day taali kon nag yooyu yu mel nii rek dëkkee defaru dëkke sangu dëkkee suuru dëkkee moytu dëkkee taxaw rek tem ah lu mu ñaral nit nga yàqu na la ko jaral nga dem xam nga am na façon liggéey yoo xam ne ñi koy suul xoolal surtout sunu mbokki làmb yi ak newetaan maa ngi leen di bàyyiloo loolu xel sëriñ si ciy liggéey itam maa ngi leen di bàyyiloo xel gis nga bu jëkk mag ñi luñ la defal danaa la bu tasee nga indil ma ko waaw gis nga am na fas yoo xam ni buñ koy fas dangay nekk ci kaw fas muy daw ci àll bi ba nga gis yëkk ak ëkk ak ëkk gu jebbiwul nga laxas ci fas gi toog ci kaw fas wi laxas ko dëpp su jeexee nga dawalaat sa fas ba ci ëkk ëkk googu liqar ci ko fas ga nga fas parce que ki nga fas ni ëkk googu lay mel mooy waral diira komba bi wala diiraa match bi du dox léppam day taxaw su jeexee nag nga dem tekki ko loolu mooy yoon nga gis loo xam ne suñ ko jatee dugal ko ci bant xat ñi ci daara ji xam nañ bant xat puso bi ngay jël soo jëlee ñaar yi nga jat ko ba pare roofalante ko gis nga jour bi bu dëggee tànkam day mel ni puso ko jam loolu même crampe yi ngeen di dégg yépp da koy waral waaw koo bëgg mu génn rek une minute mu génn match bi allahu akbar su ko defee ah ñu naan ah moom gisul moom nangam ndeysaan fekk saay-saay moo fa jaar ah su ko defee yooyu yow mi liggéey nga bañ a bàyyi sa bopp mag ñi amul kenn du sëriñ du nit yàlla du kenn ku bàyyi boppam amu ci te li ma lay wax léeg-léeg nga dégg ñu naan làmb ji daa bari gàllaaj dafa nangam nga gis ñi ko ci fonk fi nu toll amul keneen ku ko fonkul ku toll foofu amul ah, tey làmb ji soo ne mootloo yow xam nga ni mootloo dong ngay wax ci làmb ji ni ko gàllaaj bi dugal ko ci yaali mu fexe dem ba kër Balla Gaye dugal ko ci yàlla ndax xam ak respecter consigne yi nga koy jox Modou Lo boo ko ne woon gàllaaj bii bu ëmmat seen di añ nga sotti ko ci kanamam billahi fitam wu rëy woow bu am dina fexe ba dem biir kër ëmmat seen muy añ mu sotti ko loolu daf cest loolu li tax ma cité ko mooy Pastef la te Pastef dafa am solo ah Balla gay noonu ñi nga xam ni nag soo waxee ñu naan man làmb naa nga gisoo gisoo ñoo ci ëpp wërsëg ñoo ci ëpp tur ñoo ci ëppi ndam parce que ñaan dafa garaaw léeg-léeg nag nga dajeeg ñoom ñooñu ñaan ba daje ku xamul dara mu tuur sa yalwaan yépp mboorom le mbërum làmb ku ko digal ni ko taxawal ci paftan te mu takki gàllaaj yow xamoo li ngay def paftan képp ku ko laal sa gàllaaj yépp toj ba tax mag ñi buñ la daan jox lu ànd ak paftan dañ lay wax nga tikki sa gàllaaj yëpp soo ko tikkee après nga kilee ko kon mbokk yi euh, dafa mel ni tey moom sunu téléphone bi ñëwul fa tabarakallahu waaye tam ngeen am al rek waaw inchaa allahu xam naa gaa yaa ngi ci technique bi dañ doon bëgg sax comme dañ nekkoon ci technique bi bëgg a fomm waaye comme yéen dañ leen jox rendez yoo xam incha allahu dara du ko dindi ah ñu waxtaan ak yéen rek sans téléphone yàqul dara téléphone bi day mottali rek mais su ñëwul ñu waxtaan fa tabaarakallahu a ah, loolu mooy li wér ñi nga xam ne ñu ngi nu doon topp bëggoon nu jot lool sax am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla lu lee lu ne la leen euh, jaraloon ak surtout rendez-vous yi leen joxoon mais 88 628 99 vingt bi incha allahu ñu ngi ci dina jàll waaye itam 77 615 bi 32 23 mi ngi jàll moom tam incha allahu bu ngeen ci wootee rek li ngeen bëgg a xam yépp ci kàttanu yàlla di ngeen ko xam euh, incha allahu rabbi taala comme téléphone bee euh, doxul bu ngeen woowee ci 77 bi 615 32 23 après dañ koy jël wala 578 73 22 incha allahu ngeen jot nu kon loolu mooy li ci nekk su ko defee nag ku mu doon ci àddina am na liggéey yoo xam ne kenn mënu ko dindi bu boobaa nag ah, mag ñi kenn du ñoom dañ la daan wax soo demee ci ar waxunu la ngay dem ci armeel loolu tam foog mu leer di sulliy néew déedéet nanuy leeral dégg-dégg yi da daan dem ci armeel su suñu gasee bàmmeel ba noppi dafa am reen yu nuy daggee ci biir bàmmeel bi génne ko gis nga reen yooyu am na lu muy àndal liggéeyu ñeen fukki at tey lay toj tey booy sangu rek muy toj reen yooyu nga xam ni dañu gas bàmmeel bi mook buum gi nga xam ne dañ ko takke woon néew bi ñoo yem yooyu dafa am xam-xam yu doy waar yu ci nekk parce que néew bi kenn du ko takk bàyyi ko ci bàmmeel bu demee bay suul dañ koy tikki loolu nag même làpp tàkke yi dóor nit mu daanu ci lañ ko daan liggéey même bu àndeek sagaru gumba ak muuma moom lañ daan liggéeyee euh, mes yooyu daan am mais léegi xam-xam amatul ndax léegi joxatuñ ko dayoom ak gëddaam mag ñi dañ daan def ci xam-xam yoo xam ni dangay sax tudd yàlla yàlla xam na ko loo soxla mi ngi ci ah nga gis koo xam mën naa jóge fii dem bu dugg France te kenn du ko teg bët te fi nit ñëpp aw lay aw ndeysaan yooyu sunu mbokk yi dañ daan la wutloo siiru muusu siiru bu ñuul kukk bu tajul fenn nga jël ko muy dund rekk nga dugal ci benn kàddil muy baax allahu akbar su ko defee suy baax ba jeex ngay jël ci ay yaxam yax yi day dem ba tas am na yax boo xam boo ca tollee boo ko tegee ci seetu du feeñ moo daan ànd ak ñetti sagar yooyu ma lim ak eh, yenn aaya ci alquran yoo xam ne la ci yàlla wax yéeme na su ko defee gars yi def ko ndombo mu mu mu yéeme lool mais yooyu yëpp léegi daanaka sax jamono day dem ba day doy waar moo tax may wax toujours ni ñi xam dañuy ragal nit su xamee ragal amul kun mënta jàpp ci àddina ci gàllaaj amul man maa la ko wax waaw am na ñoo xam suñ la fekkee nga am gàllaaj soo indee seen tur dañ lay désarmer dañ lay désarmer ba mu jeex teggi lépp soog laa téye nag ba doo yëngu kon yàlla nañu yàlla xiir ci di amlanteeg ñu baax xiir ci di jëflanteeg ñu baax xiir ci tam euh, moytu képp koo xam ne lorekat la yàlla musal nu ci ñoom bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa ak tam lépp loo xam ni muslaay la ngi ñu def ci sunu kéemtalaay kàttan e, di ko jëfandikoo loolu farata bu mat sëkk bu jéggi dayo la kon ñi ngi jéggulu ñëpp dafa mel ni li ñu cëraloon ci waxtu mi ngi àgg ci cappaa ndaw gi su ko defee rekk ñu gërëm mbooloom ku nu doon topp ci al azkar di jéggulu nag ah téléspectateur ñi ngi hmm? cinq allo kon ñuy euh, wax ni rek ñu ni doon topp ñépp nga xam ni ñi ngi doon ànd ak ñun ci seen émission al askar ñi kile ci téléphone bi ñoom tam xam naa ni tey daanu kaas ba sonn waaye affaire technique moo mel noonu léeg nga ñëw rek euh, dégg nga ma fii lii xaw déconné waaye nekk sama gars yi jàmbaar la waaw ñoom euh, euh, caméraman yi ah ak ñi ci régie ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ay jàmbaar lan euh, ñi ngi ci booba ba tey xanaa doon leen wax seen émission al azkar di gërëm bu baax nag sëñ Mouhamed Touré maa ngi koy ziyaara ñoo ànd borom daaray alquran yi waaye itam gërëm soxna Thiama waaye gërëm ñi nga xam ne ñu ngi doon topp ñëpp alxaaji Mbay Sàmb tailleur ñaw yi ñi ngi ñaan yàlla kàttanal la mu àgg xaj Moustapha Mbay tayer ñu ngi lay ñaanal ñaw yi àgg ci jàmm ah Pape Khalifa di ziyaara nag di tatagal sunu kilifa sunu xalifa alxaaji Pape Mbay di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko dëgëral te wéral ko te sàmm ko waaye noonu Amad Mbay ci Thiès moom itam jataay bi du ko raw ñu koy ziyaara waaye itam di ziyaara mbooloom jullit yëpp Mouhamed Mouhamed Gueye nekk foofu ci Médina moom tam ñi ngi koy ziyaara euh, jataay bi du ko raw di sunu soppe waaye itam di nitu daara waaye itam di gërëm mbooloom ñi ci daara ji gis nañ appel yëpp mënunoo tuddandoo ñëpp waaye di leen wax ni sunu xool mi ngi ak yéen alxaaji Malick Dia sama xarit maa ngi koy ziyaara waaye Serigne Dame Diouf tam mi ngi ñu doon woowee ba malik maa ngi koy ziyaara waaye itam ziyaara euh, mbooloom asatise ak i aïma ak euh, ñëpp ñu ngi leen di ziyaar mbokk yi lii dafay wane ni daara ji mi ngi des di am solidarité ci seen nit yàlla xam na ko démb mbooloom ñi ma woo ñi sant Mbàkke moom xaw ma nun toll maa ngi jaar maa ngi leen di gërëm di leen ziyaara euh, Sëriñ Tuuba lii dafay wane rek ndam loo xam ni def na ko muy képp koo xam ni Tuuba ñi ma fa woo te ay kilifa ay kilifa yu mag wooma rafetlu sunu exprimation ci xam-xam ñun ay doomi daara lan xam-xam rek moo nu ñor zahiran wa batinan nag bu mu ci doon rek fexe nañ jaar fi ñu ko war a jaar ba peeg ko ni ko war a peegee xanaa dolliwaat message sunu mbokk yi nga xam ni ñoo bokk métier mu nuy def jàng du wees ku ci bëgg a exercer mën nga ko jàng fu nekk maa ngi nii sama kër ñi fa ñëw di jàng wàllu tabiayat xaw ma nu nu toll xaw ma nu nu toll yàlla mi nu tiim xam na kon yooyu nañ ci góorgóorlu ba kenn ku ne sàmmal daara deram ba kenn bañ a jaar ci yow jam daara maa ngi koy wax benn kilifa bu ma woo démb rek ndeysaan ah euh, sama mbokki baay Fall itam sëriñ Moustapha Fall ah maa ngi koy <laughs> ziyaara bu baax moom tam waaw maa ngi ni ko sëriñ Touba radiallahu anhu euh, dafa fexe ba ngeen bëgg xam-xam ñoom fu xam-xam jollee rek ak foog ñoom ñëpp xam na ni man Tiwaawan laay naane bokk fa ci xadara kër Seydi El Hadj Malick sama buntu Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz yaa ngi koy ziyaara waaye ñoom ñëpp vraiment dañu remercier rafetlu loolu day wane ni ñoom xam-xam rek moo leen ñor fu muy génnee rek ñoom looloo leen intéressé kon ñu ngi ziyaar porte parole Serigne Bass Abdou Khader nga xam ni sama soppe la moom maa ko soppal sama bopp yàlla xam na ko ñu ziyaara ahlu Mbàkke yëpp di ziyaar sëñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla waaye itam di ziyaar jullit yëpp di leen wax jox rendez-vous tam seen émission al azkar di ñaan yàlla tam julli gi ñëpp am xar mbokk yi maa ngi jox ñëpp ñu def euh, inna aataynaaka al kawsar waaw inna aataynaaka al kawsar nanu ko def 103 103 képp ku ko def di nga am xaar mën nañ la ko sax may ba sa biir waaw loolu nag maa ko def cadeau pour que nit ñi ku mënul 103 70 doy na 70 parce que 103 yi damay ragal nga am nag te nag day romb tabaski da ngeen di def 70 inna aataynaaka al kawsar su ngeen jullee fajar ba nopp yéen képp ku ko def su amul xar na ñëw poñe ma day am xar mu gën dàq ba mu daan jullee kon mbokk yi ñu ngi leen di jéggalu seen émission al azkar fii la leen di tàggoo sama xarita nekkoon ci caméra bi Yaxya Haji Yaxya nga xam ni moom du tàyyi émission bi jàkk rek moo ko intéressé macha allah yal na yàlla boole nu defal ndam jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu man bihi absartu darbi ya shafi'i